yaa xayra dayfin ataa bil bizi wal madadi wa sahlan wa julli yi mbokki taalibe yi ñu ngi dellu siwaat ci naafile yi ñuy jële ci téereb Sëriñ Suwaybu bi ñuy wax Xuratul Ayni dafa wax ne guddi juróom benneel ga ci weeru koor ku ci julli ñaari rakka raka bu ci ne mu jàng fatiha benn yoon jàng xul huwallaahu fukki yoon ak ñaar mel na ni ku julli ci maqaama ibrahima junniy raka julli ci jàkkaay màkka junniy raka saraxa junniy dërëm lele junni ñu xiif te bu ñaanee des na ko nangu mel na ni it ku jox ndogu xeetu yonente bi sallallahu alayhi wa wépp bu faatoo it ñu boole ko ci ñi dee ci jihaat te dees na ko musal ci mitiitu dee te bàmmeelam it dees na ko ko defal mu bokk ci dëri àjjana ya te buy dekki dana ànd ak leer gu mel ni jant bi di xeeñ gëtt ga gën neex te dana tàbbi àjjana te deesu ko xisaab te ca mbooloom yonente yi lay bokk bu ëllëgee jërë ngeen jëf wasalaamaaleykum wa rahmatullah yaa xayra day finata bil